jotaay bi tey li ko waraloon rek. bu ñu tollee ci Covid 19 bi ñu nekk nii xam ne crise mondiale la ñu xam Sénégal nu mu néewee doole lépp lañ tëj dara doxatul ay commerçant yi jënd woon seen i bagages pendant trois mois ñi téye ko ci poor bi téye ko ci frontière yi ba heure bii nii ñu doog a wax ne bagages yi jox nañ leen ko yàggul ci biir mois d'avril bi la ñu may ay autorisation pour ñu dem port de douane ne de douane ba pare le 20 bii lañ xam ne ci la décret bi doog a jàll. ñi dem ba ay vers le vingt neuf le trente le premier urgence environnement def ay mbooloom dugg ci marché yi di nangu ay mbuus plastique di ko defin defin boo xam ne defin bu ñaaw la bu dee dañuy jàppale transporteurs yi bu dee dañuy jàppale yeneen secteurs yi ci lu bari satisfaction ak yeneen ak yeneen te commerçant yi mosu ñoo gis loolu te ñun mosu ñoo génn di wax nañ ñu jàppale kon liñ ñu war a jàppale mooy ñu taxawal génnee ñu si informel yóbbu ñu ci industrie waaye waruñoo ñëw di daaneel suñu koom-koom ak suñu économie li ci gën am solo nag pour ñu bàyyi ko xel mooy nañ bàyyi xel xam ne ñun li ñu yor ci emploi kenn yoru ko bu buggee créer emploi sax bu jaaree ci ñun si lay gën a gaaw si lay gën a yomb waaye tey jii nii dafa bëgg a normal économique waaye dafa bëgg a daaneel dooleel commerçant yi mu bëgg a xëy rek ne dafiy jëlee mbuus. am na ay saisi ndaxte boo xoolee fu mu toll nii am na benn L200 boo xam ne ñu ngi ci bind urgence environnement muy euh, bokk ci cabinet ministre de l'environnement. mu ngi wër ci région yëpp Kaolack fii ñëw nañ fi démb am na place yu ñu fi dugg di jël seeni i mbuus fii nag mënoo jaayal nit te defoo ko ci mbuus nit ki doo ko jaay mu def ko ci ay loxom boo bëggee jëlee mbuus da ñuy indil solution nañu lii moo fi uti mbuus yi. am ñu bëgg ñu bàyyi ñu écouler suñu war a jëndi nag ñu ne ñu bu fi kenn indi mbuus waaye lu duggagu moom nañ ñu bàyyi ñu écouler ko ñun bëgguñ délai xam nga luñ bëgg ñu bàyyi ñu écouler li fi nekk ba mu jeex tàkk léegi ñu tegal ñu leneen lu leer gis nga boo bëggee dem da ngay fexe niru sa jamono ñun dañoo bugg indi loo xam ne ñun nekkul ne foofu lañ toll boo buggee jëlee mbuus mënoo fee indi leneen kon liñ fi bëgg a indi tamit rek indi wuñ ko kuñ fee jëlee lii bala nga naan naam da nga fay ne beneen bi ñu ci dolli mooy nañ bàyyi xel ne commerçant yi ci weeru koor lañ nekk marché bii ñuy xëy guddeeg bëccëg gi dama ko ñëw heure bii ñuy wàcc nii métti na trop ñi ngi koy wax suñu autorités yi nag di ko commencé ci préfet ak monsieur le gouverneur respecté nañ leen lool nag ndaxte lépp lu ñuy wax boobaak léegi ñu ngi ànd ak ñoom di ko def waaye nañ bàyyi xel ne commerçant yi daf ci bëri ay mag ak ay ndaw te ñooñu naaj bi ni muy tàngee ak or moment bi mu nekk ci mois de mai kenn ku ne xam ne mois de mai ci digg tàngoor été bi gën a tàng si la nekk kon war na ñoo bàyyi xel ci loolu ñu dimbale ñu puusal ñu heure bi ñu mën a xam a dal tuuti xam li ñuy lekk fan lay jaar buñ mënee or fa fu yàlla sax xam na ne ñun li ñuy ooree nii dafa métti wala ko moom da ko sax ne nii suñ pourcentage bi ñu am ci koor gi daf ñu koo doublé moom yàlla ndax xam na ne ñun kaw li ñuy or kenn ooru xaalisi jambour lañ yor ak suñu capital yiñ ci def ak yenn ci xaalisi banki ba nopi ñu tek ne tay ñu jaay ñu ñew diko nangu nanguwaat lolu moo ñu metti té lolu duñ ko nangu parce que ñun ay citoyens lañ ci réew mi lañ bokk ñu respecté état lañ liñu bëgg moy mbuss yi xass nañ ko dé douane dugg na ci réew mi nañu may délai bo xamanteni ni liñ fi stocké danañ ko jaay mais liñ xasa jënd bu duggal ko dé faj dédouanement fas yéene ci fay suñu bor ñu diko nangu nanguwaat lolu moo ñu metti lolu lañ bëgg mu dañ